ñetteelu article ak terminus muy fin bi nag mooy dina sans versement bo xëyee 8h 1h 0 minute sans versement sama taabal ni ma tim ko ni di ko ni ni mu mat ni nga mucc ni ni ma li nga wax yépp mala ko laaj andil nga ma xaliss bi wala andi woko andi mo tous c'est tout wa wa bu fekkente ne tàngaay wi da nga yor ganaar di wër di jaay ba mu faatu yallaaw ci say loxo ma dóor la bal nu rabi la yàllaaw. Ya ci way way kontaan naa njëgu gerte nof laay ya la. waaw ci waay ande be ko jere dégg nga jërëjëf jere jere jere jërëjëf ayca Ibrahima ana loy taxaw ay ci ngay ŋaawi ŋaawi sa bañuy buur yi ayca waay eh ubal ferme mo am nga ne alkaati du baye dóor te yag yag guddi dina jot te guddi sama ginaaw ngay jall ma ngi lay xaar ci bir ndekuma wax wax beccak lo ni wax di waxi beccak dañ koy régler amicalement. yow xanaa guddi nga ma mënal dara yow bu ñu nee salaamaaleykum day kumba nga fàttu ci nekk bi naan bëggu yàlla waaw kay yàlla bu guddi am nag ndekuma ñaan naa ko subhaanahu wa taala yàlla nay leer rek ba fajar. voilà te benn bi nag laa takk de su ma takkee yëpp dootoo ma xaaral ma wala est-ce que yaa ngi may gis. déedéet gisuma la de. dama bëgg a wax su ndekkee fii bu yeggee fee omelette ndekki. ay omelette yu baax la ñuy jox foofu moom day ndekki fii après day ndekkiwaat fële. moom ma ndekkee lëf de poule man. Ah. ma ma ma ma. jë jëf yow ma ma ma lay doxaan ma doon doxaan. ma yow ki ñàkkoon fa man. Ah, man ak ma topp téel maam yàlla fan fa. Eh. nank nank bul jaar ci benn secours. bugguma dara lu may yàqal. gémmiñ dinaa ko gungool. gémmiñ caabi. ma ne dinaa ko gungool. <laughs> eh voilà. Ah, xaw ma Ibou. waaw. gungé lañuy wax gungé say dom dama nga wax len ko ñom ñoom nga wara a mais pa man. sa morom dina la dab dina tok sa lu bon ba nga réglé. dara ci bolé wal dé man dina la wone duma sa morom. dina ci kub la ñak fay la. na nga def. doon rafet na de. nga ne. man de namatuma bureteel ndax yow. waaw baax waaw. la ko. kan nu kan nu def ba kan nu